le futur président du peuple inch'Allah tey bis bu màgg la bis bu rëy la ci ñun ndax nag <laughs> Sénégal de cee bokk ti ñu gis ku ne ñu naan war nekk président Sénégal ndax am nañ ay milliards ñi sàcc nañ ay milliards ñii doomu président lañu ñii ay terroriste lañu ñii dañu ne ragal ndax dañu dóore di xaste di nappaate di taal ñu ragal leen ni war nañ nekk président bu dul loolu lu ñu wane Sénégal dara ñii may doomu président rek dara ñii ji ñu leen ay milliardaires ñu ne war nañ nekk président ëllëg waaw loolu moo yore réew réew jikko ju rafet moo ko yor réew jaar-jaar boo wonee da nga xeexal sa réew moo ko yor réew ku bëgg réewam ba jal ko bakkanam moo koy yor waaye du jël ay réseaux sociaux ay télévision ay rajo inondé ko corrompre ñenn ñi ñu tëgg la naa yaa war a nekk président yow loo def pour mériter nekk président